à l'audience, toujours sur cette euh, situation, d'abord sur la dissolution de, du parti PASTEF, mais aussi et surtout au développement de la Cour suprême sur ce qu'on appelle aujourd'hui donc euh, par rapport à la radiation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, au niveau de la Cour suprême. L'audience euh, se poursuit pour l'instant Aucune décision définitive n'a été prise donc au niveau de a pris donc d'abord décision de dissoudre, euh, ou en tout cas d'approuver la dissolution euh, du parti PASTEF, mais euh, que jusque-là, donc la Cour de la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur la radiation ou non de Ousmane Sonko. Je rappelle donc un des candidats à la candidature de la présidentielle de donc un des euh, verdicts, en tout Mali, en disant donc que le verdict de la Cour de, de la cour de justice de la CDAO vient de tomber, mais la Cour a jugé qu'aucun des droits de Mouchi Ousmane Sonko n'a été violé et n'a donc débuté, débouté pardon, de ses demandes. La communauté nationale et internationale a suivi les événements qui se sont produits au Sénégal, le comportement de l'État du Sénégal et le traitement de l'État ou bien inhumain et dégradant subi par M. Ousmane Sonko ainsi que euh, les, barricades érigées autour de sa maison en jugeant comme elle l'a fait donc euh, les, les dictateurs pourraient désormais agir comme l'État du euh, Sénégal a fait donc se prévaloir de la jurisprudence de la Cour. C'est dommage, le peuple sénégalais et les peuples est un peuple mature et il saura donc faire son propre destin et vaincre. Maître Siré Clédor Ly donc écrit cette note. Mais je rappelle qu'en ce moment, donc, il est au niveau donc, de la Cour suprême euh, pour euh, assister à l'audience euh, donc de la Cour suprême s'agissant de la dissolution ou bien de la radiation de leur client Ousmane Sonko. Réaction aussi donc euh, d'autres candidats, réaction de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Les dictateurs peuvent désormais agir comme l'État du Sénégal. Le peuple est mature, nous, euh, mais donc euh, justement le peuple va vaincre, a dit Maître Siré Clédorli. Retenez que la Cour de justice de la CEDEAO laisse la Cour suprême sénégalaise statuer sur la dissolution du parti PASTEF. Je vous rappelle les 11 points où, donc, qui ont été amené au niveau de la cour de, euh, de, euh, de CDAO par les avocats de Ousmane Sonko d'abord. Le premier point, il s'agit des droits justement de la défense et de, euh, à un procès équitable. Euh, pour leurs clients. Ousmane Sonko, deuxième point, toujours amené donc euh, porter euh, ce combat au niveau international devant la Cour suprême ou bien devant la Cour de la CDAO, c'est le droit d'accès à un avocat puisque c'est le pôle avocat d'Ousmane Sonko. On pensait que parfois ils devraient normalement avoir accès à leurs clients mais malheureusement l'État du Sénégal ne leur permet pas peut-être de faire le travail. Souvenez-vous, il y a eu donc ces genres de situations au niveau était Kër Gorgui ou Régide, le leader de PASTEF ou l'ex-leader, en tout cas le leader de l'ex-parti PASTEF Ousmane Sonko, quand il a été donc euh, barricadé et donc euh, dans, et mis euh, sous résidence, euh, sur résidence, sur, de, surveillée. Si vous vous rappelez bien, Maître Ciré Clédor Ly et les avocats d'Ousmane Sonko avaient sorti pour donc euh, s'indigner de cette situation qui leur permettait ou bien l'empêcher d'avoir accès à leurs clients. Cela faisait des points dont ils ont porté donc au niveau de la Cour de euh, justice de la CEDEAO et où il pense que ce sont, euh, ça fait partie des 11 violations de droits de l'homme de leurs clients. Troisième point, il s'agissait encore une fois euh, du droit à la liberté de circuler, d'aller et de venir. Et il s'agissait donc, je le disais tout à l'heure, avec la, euh, si vous rappelez, Ousmane Sonko qui a été donc mis sous résidence surveillée. Quatrième point, le droit à la santé physique et morale. pour lui-même et euh, pour la famille, y compris donc 11 autres, je dirais, 7 euh, autres points, euh, donc y compris la violation par l'État du Sénégal du droit de Mouché Ousmane Sonko de prendre part à la direction des affaires euh, publiques et de voter et d'avoir le suffrage des électeurs sénégalais. Cela est un point important d'ailleurs même dans ce combat qui fait aujourd'hui donc euh, que le pôle avocat d'Ousmane Sonko a justement saisi la Cour de justice de la CEDEAO, puisque tout cas aujourd'hui, c'est que euh, Ousmane Sonko puisse être électeur et puisse être éligible euh, en tout cas aller à la de, euh, Sénégal être candidat à la candidature la présidentielle de 2024. Retenez donc que la demande des avocats était donc constituée de 11 points. Pour revenir justement en version Wolof, bokki dellu li nga xamante moom mooy jëm ci li ñuy xaarandi jamono ji tey jii Euh, ñuy euh, wax ak yéen dàppale euh, ne kon cour de justice bu CEDEAO dàq nañu wala sax ñoom ci seen bopp ànd nañu ci diggal bi ñu digal parti bu Ousmane Sonko ba woon di Pastef ñu ngi xaaral nag CEDEAO ñu génnee seen ndogal ci li nga xamante ne moom mooy beneen ponk bi mooy euh, kon wax ndax Ousmane Sonko ànd nañu ci dàq bi ñu ko dàq euh, ci liste électorale yi am déet loolu nag nekk ab poñ bu am solo euh, jamono ji waxaguñu ci ñoom waa CEDEAO waaye jamono ji jàppale ne kon foofee nga xamante ne moom mooy ca cour suprême ñoom tamit ñu ngay daal di sëgg ngir saytu la nga xamante ne moom moo fay daal di xew sànq léegi ba may dugg ci plateau bi maître El Hadj Diouf xam ngeen ne bokk na ci agent judiciaire bu l'État maanaam ñiy layool état bu Sénégal bokk kon ci fukk fukki avocats yi nga xam ne ñoom ñoo ko teewal Euh, maanaam état bu Sénégal foofee ca cour suprême maître El Hadji Diouf moom moo doon wax sànq bi ma yëg euh, ci euh, plateau bi bokk nag ca la mu xamle mooy fi mu ne nii Ousmane Sonko dafa jàppoon ne moom moo nekk njiit bu Sénégal waaye Euh, moom ci boppam euh, CEDEAO xam nañu ne euh, maanaam CEDEAO dàq nañu la nga xam ne moom moo nekkoon xalaatam te loolee victoire la ko jàppee moom maître El Hadj Diouf gannaaw nag ba mu jàppee ne kon fi mu ne nii jot na ngir CEDEAO wala cour suprême jël ab ndogal ci li nga xam moom mooy kon seen braquet ba ñu yóbbu foofee ca cour suprême waaye jàppale ne. jamono ji ñuy wax ak yéen audience bi ñu ngi koy wéyal foofee ca cour suprême lépp loo xamante ne tukkee na fa daañu leen ko tale bu ci kanamee édition spéciale bi dañ ko jëlaat reprendre bu fekkente ne am na loo xamante ne nag génn na foofee kon ci li nga xam ne mooy cour suprême bàyyi leen ngeen wéy daan la suñuy programme ànd ak ki nga xamante ne moom mooy soxna Mariem kon mi nga xamante moom moo ñu nekkal Euh, foofee ca euh, cour suprême euh, en direct et en exclusivité lépp loo xamante ne génn na fa ci ay xibaar dañ leen ko diktal nekk à votre service pour que vous ayez l'information vraie et sûre. li jëm ci lu jëm ci wàllu parti bi ñoom jëloon nañ li nga xam ne scotché ne quittez surtout pas. lii élection bu masaana toll fii on a euh, vécu 88 le cas de Abdoulaye Wade et Abdou tey Ali Siré Ba mi papam moo doon àtte Abdou Diouf ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Abdoulaye Wade